réew mi fii lañ ci toll fii lañ ci fekk lii lañ fi fekk fii lañ ci toll ñu ngi ci liggéey sàngam yooyu yëpp bu ñu koy doxal am naa yaakaar ne duñu ñu réeroo ak askan wi. Mhm. mais s'il se laisse faire parce que aussi nag bu ñu fàtte ne euh, ils ont aussi euh, en face de benn opposition boo xamante ni ñoo fi nekkoon au pouvoir tous les moyens sont bons pour le déstabiliser. pour déstabiliser l'actuel régime. Mmh. bon am na fort nañ ci parce que pendant douze ans nekk nañ fii di nax. Mhm. yeneen cinq ans yii fi nekk nii yëpp bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xam nañ xam ne ñoom que ne cinq yii ñoom ñu fi nekk opposition bu bees bii dana def tout pour les déstabiliser hmm. léegi nag reste maintenant à l'état euh, mu serrer ceinture serein loolu mooy wax Mhm. ñuy communiquer ak askan bi di waxtaan ak ñoom ñu nekk en communion. su ko defee réeroo loolu bu ko defee rek mhm. yaakaar naa ni réeroo du mën a am. réeroo du mën a am ba tey euh, ci wàllu li nga xamante ni moo jëm ci wàllum euh, dem ak dikk. dégg hmm. gis nañu ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew bu France Emmanuel Macron moom nag bëgg na njiitu réew mi Diomaye ak premier ministre bi daal di ñëw France la mu ca jublu nag mooy fexe jëmal li nga xam ni moo di collaboration bi dox ci diggante euh, France ak Sénégal ñu ci bëri jàpp nag bu ñu dem ndax ab ndëgg sërëx lañ leen teg. <laughs> loolu moom defe naa sujet la boo xam ne euh, même bu bu dara xewagul sax sénégalais dinañ ci interroger wu mooy euh, daan nañ gis li li ñu daan gis ci tradition mooy ku ñu fal Sénégal bu ñu la falee la ngay njëkk a def mooy jël avion. dem wàcc France donc loolu moom euh, minoon nañu ko ci président yi fa nekk surtout que ñii nga xam ne ñoom ñoo yore réew mi dañoo dañoo dañoo woote rupture. am mm-hmm. benn gis-gis boo xam ne moom la ñu am. partagé ko ak ñu bëri ci sénégalais yi aujourd'hui ce qui se le problème qui se pose mooy euh, tey Bassirou Diomaye fay hmm. euh, déjà ci prestation de serment dans son discours dafa am taxawaay boo xam ne daf ko wane et muy wane benn rupture ci Sénégal hmm. mooy euh, képp koo xamante ne nii partenaire u Sénégal nga ànd bi dafay doon ànd boo xamante ne nii maanaam Sénégal daf ci gis boppam waaye beneen Euh, collaborateur daf ci gis boppam. Hmm. mu wax ko nag xëy ne xel yu bari dafay dem ci France ndax France daanaka Euh, moom moo ëpp ci ci ci lu ñuy collaborer ak moom ci yenn ci yenn mbir yi euh, li nekk ci entreprise française ci biir réew mi kenn xamul nu mu toll donc tey mhm. euh, le président Bassirou Diomaye Faye bu am na discours yoo xam ne bu ko teniree rek xel yu bëri dafay dem ci France gis nañu depuis mu nekk président ak léegi gis nañu tweet bu le président Macron def d'ailleurs def traduction en wolof ba mu indi woon fi ay wax lu tax mu def ko alors que mu si woon def auparavant donc yu bëri xew na fi mais Euh, il faut ñu comprendre posture bi France nekkee mooy euh, France dafa nekk ci euh, posture boo xamante ne nii soit dafay nangu li nga xam ne nii moom mooy gis-gis bi. parce que mhm. tey déjà dans dans dans ce tweet là yaa ngi gis mi ngi mi ngi mi ngi comparer Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en Afrique mooy réew yi nga xam ne peut-être ci ay coup d'état la ñu jaar. Mhm. Sénégal tey ji malgré coow li bëri woon na lu ne xew na fi mais. fexe nañ ba préserver démocratie bi ba dem ci urne yi ngir euh, def ay élection présidentielle mhm. loolu nekk loo xamante ne defe naa àdduna yëpp def ñu ci ñe rawatina euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal tey Afrique est-ce que xam réew yi nga xam ne euh, daanaka ñi fa nekk ci ci coup la ñu ko jëlee daanaka ñu ngi tàmbale di am problème parce que exemple lu Sénégal dafay dafay nekk benn loo xamante ne dafay jur benn révolution ci yeneen réew yi. Mhm. tey jii yeneen réew yooyu noonu que ce soit mu nekk Guinée. wala Mali wala yeneen réew tey jii bëgg nañu dem élection présidentielle. tey jii ku mel ni Doumbouya ku mel ni Assimi Goïta mhm. surtout actuellement mi ngi mi ngi am benn pression bu métti boo xam ne mi ngi ñu ngi koy teg ci kawam pour que mu respecte li nga xam ne moom moo di transition pour que ñu dem ci élection présidentielle. lu ko mhm. waral mooy situation Sénégal dafa neex tey ñu am un président boo xam ne le peuple bi nga xam ne moom moo nekk ci dëkk moom moo def choix am porté mhm. choix am si nit kooku noonu tey jii ñoom ñoo ko fal bokkut ak koo xamante ne peut-être. ci coup d'état la jëlee réew wala quelque chose comme ça mm-hmm. et dafa inspiré yeneen réewu Afrique yi donc euh, situation boobu buñ ci tollee déjà le président Macron dina xam ne kat Sénégal euh, réew la boo xamante ne nii dafa am benn particularité mm-hmm. mais par rapport ak euh, contrat yi nga xam ne moom moo nekk ci diggante Sénégal ak France franchement bu toogee moom dina xam ne un Bassirou Diomaye Faye bi may gis nii c'est pas quelqu'un boo xamante ne dama koy ñëw teg naan ko bon léegi contrat yaa ngi nii wala li fi nekkoon démb moom la ñu continuer mm-hmm. rupture bi nga xam ne woote woon nañu ko ba tey ñu accéder au pouvoir da jàpp ne loolu moom mooy continuer léegi nag France ñaari choix lay am mooy euh, li nga xam ne moom mooy gis-gis bi ak li normal li war a am mu nangu ko loolu am mhm. su ko nanguwul dafay am benn rupture boo xamante ne nii euh, dañuy couper euh, complètement cordon ombilical comme ni ñu koy waxee ci diggante Sénégal ak France parce que euh, Sénégal la ko dese si yeneen réew. c'est ça léegi il mu mu mu wàcce loxoom pour que mhm. euh, ñu mën a xool nu ñu rafetale mbir mi parce que li fi jot a jaar moom quoi qu'on puisse ay ay scandale la. Mhm. que tey su ñuy wax ay ay mbiru accord secret yeeg euh, yoo xam ne daanaka Sénégal boo xoolee lam ci am ay 10 pour cent ak ay lu lu ko jege. Mhm. mais loolu insulte la sax ci sénégalais ak yëpp sénégalais yi. donc tey jii quand suñu demee ba fal président boo xam ne. am na cette euh, vision souverainiste am na loo xam ne du ko nangu donc mm. forcément le président Macron il est obligé euh, mu ñëw euh, jege leen nangu parce que tamit boo nekkul ci yoon da ngay xam ne yow yaa nekkul ci yoon et aujourd'hui je pense que foofu la sunu président yi fi nekkoon man loolu tax mënu ma leen comprendre tey mm. naka nga mën nekkee ci réew moo xamante ne aujourd'hui suñuy wax ooru Sénégal ooru Sénégal Sénégal yi dégg lañ ci am mm-hmm. yeneen ak yeneen ressources mais jamaa sax mi ngi ci biir réew mi d'ailleurs coow na fi ak Moussa Diop et finalement gis nañu ne euh, réellement jamaa am na ci ci réew Sénégal. Mm-hmm. lu bëri xew ci biir réew mi e daanaka ñi jiite woon Sénégal Sénégal euh, dañu nëbb lu bëri sénégalais yi ci ay ay ay contrat yoo xam ne am na fi mais jël sunu ressources yëpp pasar pasaree ko France daanaka euh, Sénégal li mu war a dundee ci réew moo xamante ne yow sa dara dëgërul. li nga war a dundee yëpp ay tubaab ñoo si teg loxo yóbbu ko ci seen réew comme si ñun mérité wuñ ko quoi mhm. donc loolu c'est des yoo xam ne saa peut pas continuer donc loolooy waral peut nga gis euh, un Macron boo xam ne si doxalinam dafa mel ni kuy séduire euh, le président de la République <laughs> yemul sax si président la République ken nga daan tudd président de la République teg premier ministre mhm. et moom il cite Euh, le premier le, président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko donc mën nañ jàpp dafa nekk di séduire mhm. et déjà moom li mu wax leer na mooy moom pare na pour ñëw euh, Sénégal et fixé na pour ñëw Sénégal mais laata loolu dafa bëggoon a invité euh, le président Bassirou Diomaye Faye <laughs> non comme moo soxla moom na ñëw. c'est ça quoi <laughs> non yow xam nga man ba ba passation di soog a am wala avant passation dañoo toog ma ne ma ne ma ne gis nga jamono ji Euh, président Diomaye ba fal woon bu defoon coup de nekk euh, Macron damaa bëgg nga fekk ma Sénégal jour temps daf ko fi fekk. Hmm. parce que situation bi fi mu toll maanaam France moom mooy soxla Sénégal mais du Sénégal mooy soxla ji France parce que hmm. suñu ànd ak France ñun ñoo ci loru. aujourd'hui am na loo xam ne moom bëgg na ci mais xoolal ñaata entreprise français ñoo nekk au Sénégal. xoolal loolu rek cest tey ñun suñu économie ñun li ñu waroon téyel suñu bopp yëpp France moo ñu ko téyel mm-hmm. et c'est des choses yoo xam ne il faut que mu cesse Sénégal euh, nekkatul benn liir boo xam ne dañ koy tette wala euh, France nekk ci ginnaawam ak vision paternaliste bi nga xam ne moom la am c'est un boo xam ne Euh, su le président Diomaye war nañu def suñu kéem kàttan pour que lu bari ci suñu réew ñu mën ko téel suñu bopp mënuñu di nekk ci réew moo xam ne tey ak li am ci borom xam-xam xoolal ñu ngi wax ci gouvernement bi ak nit ñu jëlee de partout ay borom xam-xam yu mag indi leen et li ci des defe naa moom moo ëpp sax ñi fi nekk nii tey ji naka la ñu mën a nekkee dans pays boo xam ne mënuñu gérer suñu bopp suñu courant mënuñu gérer suñu bopp suñu ndox mm-hmm. mënuñu gérer suñu bopp suñu suñu télécommunication ak lu bëree bëree bëri aujourd'hui il faudra que ñu am courage ces sujets là ñu ñu taxaw si mhm. euh, pour mën ko régler mais ce qui est sûr mooy diggante Sénégal ak France moom lenn mooy am mooy ànd nawle gi ñuy wax ànd nawle la doon suñuy séq ay contrat ñu séq loo xamante ne Sénégal daf ci gis boppam France di si mhm. gis boppam su dul loolu ñu xool lu ñu def ak ñoom parce que am na loo xam ne mënatul continuer <laughs> am na loo xam ne mënatul continuer kàddu yi moomoo euh, li nga xamante ni moom la ñu bëri jàpp Sénégalais